kuréel gi boot nitu daara ñu duppee la voix du daara moo leen di lii ci kàddu gi sëriñ Dame Touré aousbillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmani rahim salaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu askanu senegal yépp fuñ man di nekk ci réew mi di ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di ñeent ñi nekk ci askan wi nun waa la va di daara di kàddu daara te lenn ci ay sëriñ daara ak yaayi daara ak ñoo xam ne alxuraan ñor na leen ak jub ak jubanti ak jubal ci senegal ñoo leen di nuyu ci njiit li Ahmadou Dame Touré di soññi suñu bopp di soññ képp ku bokk ci lava di daara di kàddug daara nu farlu bu baax ci élection législative yi nu jublu di 17 novembre di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre di wax nun ñëpp nan dugg ci kër yi yaatal liggéey bi ci ñin ko bokkal ñëpp ak ñi nga xam ne jubbanti réew mi ñor na leen muy jub jubbanti jubal mouvement bi ñi ngi ko sosoon ñeenti at ci gannaaw waaye lépp bëgg daara am ay toogu ca pencum ndawu réew ma ndax xam nañ ne jub ak jubanti ak jubal munta ñàkk doomu daara ca biir ndax doomu daara ci loolu lañ ko yar kon noo ngi soññ ñëpp di soññ askanu Sénégal bi ci biir réew ak bitim réew dibéer ci suba muy dimanche ci suba na ñëpp yeewu dem woteeli Pastef di parti bi nga xam ne dara ñoro ko dudul Sénégal parti bi nga xam ne ñi ci bokk ak ñi nga xam ne ñooy patriotes yi ci bokk joxe nañ seen bopp joxe seen groupe joxe seen alal joxe seen temps lépp ngir jot ci Sénégal pour jubbanti ko mu tegu ci njub di jubal comme lefi maam yi bàyyi woon mbokk yi bu leen fàtte ne Sénégal taarix bu rafet ci la sosu ci maam yi sell ci xel yu rafet. ci mbokk gu rafet bu leen fàtte ne sunu maam ya bañ nu tàggaloo ñoo daan wax naan Sénégal benn bopp la bu leen ko xar ñaar bu leen fàtte ne sunu maam ya ñoo nu defaroon ay kal ñi sant Diop di kal ak ñi sant Jaay ñi sant sekk di sant kan ak sant Guèye ak Jaw ñi sant Touré di sant kan ak si ak si la Silla ñi sant Mbàkke di sant kal ak ñi sant Ndaw ñi sant Si di kal ak ñi sant Ndaw sant yu nekk di ay kal ndax buñ bëggee mer kal yi dikk def intervention ñu daal di gis jëfi maam ya waaye maam yi yemuñ ca dañoo daal di def kaligiir ñu ne tëgg bi ak lawbe bi joolaa bi séeréer bi naar bi ñoom ñëpp ay kal ngeen bu ngeen demee ba seytaane na doo dox seen diggante kal dikk def intervenir fàttali lu maam ya ndax loolu ca lañ yam déedéet ñu def calibration ñu naan ajoor ajoor bi ak bawol bawol bi kajoor kajoor bi Casamance Casamance bi Tamba Tamba bi lépp bëgg bu naree mer intervenir ñëw boo xam ne mag ñi ñoo ko ràbboon muy matière teraanga yi gën a sell loolee la Pastef gis patriote yi gis ko son excellence président Bassirou Diakhar Diomaye Faye gis ko waaye su premier ministre bi nga xam ne moom boog ak room lu dul yanu ko teg ci kanam Asrafil mi rocci roo yi ne ko roccil roo gi ay noonam loolu rek lañ mënut ci moom te buñ ko mënoon def ko kon nag mbokk yi nanu bu wér a wér a wér a wér a wér le bi nga xam ne moo daan manque am bëgg noo posé fi ay luwaam bàyyi fi ab xaalisam waaye bernu te nangul nu dugg ci réewam te moom wax du ko neexee dugg sunum réew mbokk yi la va di daara ñu ngi woo góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ci nekk Sénégal ak sa loxo tey jii le 17 novembre kenn ku ci nekk yaa yor paaka bi nga mën a dagge boobu ngi ñeewe Sénégal seen mbokk Ahmadou Dame Télé di président la va di daara mi ngi woo ñëpp yëpp nag mat na nag lu mat ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ci wote yi passé parrainage yi ñu def mat na ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer te lu ko ëpp dolli waat nu ko ci waaye ñun jóg nu di manifester jóg nu dara xam ne nag carte électorale bi carte d'identité bi mooy buum gi nga xam ne moom la ñuy xeexee mooy yet bi nga xam ne moom lañuy ñuy xeexee bu leen fàtte nañu fi jiite woon yàq nañ réew mi lekk nañ alal réew mi Sénégal réew mu riis la sunu borom dimbali nañu ci lépp ci xel xam ak mbokk waaye ci ay ndaw waaye ci njàmbaar kon na ñëpp jóg dëggu Sénégal un peuple un but une foi daara ci boppam lépp dañoo bëgg a jóg wote pour Pastef am 140 députés wala lu ko ëpp 140 députés gën gaa néew nañ ko am 140 députés nan fexe ba am ko te mën naa nekk ndax ñi bëgg Sénégal jub dafa bari li des mooy ñi yàqoon Sénégal rek ñoo des te ñooñu xam nañ ne du ñëwateel te am na ñu nekk seen bi sax dana ñëwateel kon noo ngi woo ñëpp la va di daara. mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn xarit mbokk am ngi jàmm dibéer ci suba muy dimanche ci suba di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre mooy journée de libération di Sénégal na ñëpp jóg noo ngi ñaan suñu audio bi ñu tasaare ko fépp ndax fépp am nañ fa ay coordinateur ci Afrique Sénégal Angleterre France Amérique fépp am nañ fa ay coordinateur ak i coordinatrice nañu tasaare audio bi muy sunu soññee xuloowunu xeexunu nun daal na Pastef am 140 ndax bëgg liggéeyal réew mi bëgg lu dara lu ko kal dañoo bëgg ñu yóbbu directement ndax xam nañ ne senegal dana nekk ca kanam incha allah salaamullahi aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ko déggandoo di kàddu tukkee ci kuréel gi boot nitu daara ñu duppee ko la voix du daara la leen yitteel mooy daara jëm ca kanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen yi nekk ci Uras-Fil Irada yëpp ngi leen di nuyu kàdd googu ngeen di dégg ñu di ko dugal léeg-léeg Serigne Dame Touré la ca Italie Serigne Dame Touré nag dañoo bokk ci mbooloo mu ñuy wax la voix du daara yàgg nañoo liggéey tamit lool wax dëgg yàlla te liggéey boobu gisuñu ci lu dul njëriñ ah, pare na ñu daan def yëpp ñoo ko doon ànd di ko def ak fu ñu mën a féetee féetee ndoo waaye nag depuis e, ñu yëkkatee projet bi nga xam ne moom la Pastef yëkkati ci réew mi ak léegi suñu liggéey yëpp nag ci projet boobu la jëm ndax nit ki lépp lu mu nekk da man na ko wane ne ci lii laa nekk ñun yoruñu parti nekkuñu ab membre yi Pastef nekkuñu membre yi beneen parti ci parti yi nekk ci kaw nguur gi ak yi yi feeñ di xëccoo waaye ñun réew mi moo ñu intéressé ci ak sappar ci koom buñ doon ut tax ñoo jóg ci wàllu politique kon bañ amee ci bañ amee alal ci politique yàgg na lool waaye ñun soxlawuñu alali politique soxlawuñu alali politicien yi xalaatuñu lu ñu réew mi defal lu defar defal réew mi la ñuy xalaat te nag réew yi ba mu amee indépendance ak léegi yàgg na am na réew yoo xam ne ba ñuy moom seen bopp noog ñoo ma tolloo woon te léegi ñu ngi leen di bëgg xam nga ne Malaisie moos kenn du ko dëkk tëkkaleeg Sénégal bu dee yaatuwaay ak bari waaye moom ñoo leen ko gën a def waaye nag bu dee avancement ñoo ñu ko gën a ñoo ñu ko gën a def te daanaka nag suñu rakk lañ ay topp ay al toppe la ñu woon Inde li muy bari bari mbooloo ak li muy avancé avancé bay naawali radar ak a dem ca weer wa biñ leen di jox indépendant booba ñoo leen tane donte ñoo ñu gënoon a yaatu suuf ak mbooloo ñoo leen tane ci pexe te gis ngeen tey fi ñu egg kon lu dep lu jóge réew mi ci ndóol jóge ko ci ñàkk jóge ko ci ay problème yóbbu ko ci naataange ba ay nit di immigré ñëw Sénégal di liggéey si di ñibbi yóbbu teranga lañ bëgg waaye bëgguñu suñuy doom di def barsàq mbaa Barcelona fii dara nekku fi am mbaa dee ma am ma dem Europe mbaa ma dee na européens yi doon jëlee seeni gaal di jéggi Europe di ñëw Afrique ak seeni kanu di xeex ngir ut teranga ñun duñ ko def ndax teranga amul Europe Afrique la am waaye dañoo war a taxaw nag ci conserver suñu teranga jooju ba mu jariñ ñu jariñ suñuy doom ñun africain yépp xaalis bu omo Europe am ci àddina bañ di ko tiitaroo or ba ko garanté biir Afrique la ko jëlee te xa te Afrique mënut am sax xaalisu boppam bu moom sàkkantuma muy doon bu diis wala bu woyof kon dañoo jóg ngir soppeku ak soppi waaw ndax yàlla dana inna laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim dañoo war a soppeku ba noppi door a soppi assemblée nationale daal képp kuy dégg suñu woote te muy woote la di dara liñ la sant mooy. ñii nga xam ne dañ leen a may bopp ba noppi bu kenn rocc làmmiñ wi denc nga xam ne dañuy kàll ak liyaar waaye duñ mën a wax te may bopp lu ci aw làmmiñ mënut wees nga fal nit mu nekk président nga xañ ko assemblée nationale eh, jox ko ñoo xam ne wóor na leen ne seeni intérêt dong moo leen tax a jóg waaye leneen taxul leen a jóg ñi fi nekkoon ci ay député tàccoog yuuxoog saaga ndey ak saboté ak bu lu ñeen wateloo ñu wate ko ci loolu la ñu nekkoon te ba ñuy laata falu dañoo dellu si ci ñun ñii ñun ñoo leen fal am réew bu falee député député yi day taxawal réew ma ca ci péncam ndawi réew ma buñ ne péncam ndawi réew mi kay ku fa toog di ndawal réew mi war ngaa xam ne réew mi la yónni waaye su la nda su la su la su la réew mi yónnee nga dem nekk fa xuloo ak saaga ak fecc ak tàccu topp ci benn waaye lu mu la wax nga def ko loolu mënul nekk dëgg la maanaam état boo ko joxee nit euh, euh, ma assemblée mën nga ko jox ñeneen waaye na fekk nga jox ko ñoo xam ne ñii ah, ah, wóor na leen ne réew mi leen ñor te yenent bi daf ne laa yuldaqul muminu fii juhrin marratayni laa yuldaqul muminu fii juhrin marratayni li muy tekki mooy menn pax ku gëm yàlla duñ ko ci matt ñaari yoon nga dugal sa ndijoor ci pax mi am lu la matt nga génn ko dugal sa càmmoñ boo ko yaa tey ma ne bi ñu dugalee suñ loxo ci pax mi am na lu ñu matt kon nag bu ñu dugalaat nañ seet nañ fexe ba génne li nekk ci pax mi te mate sànni ko ci biti assemblée lañu fa daj eh, ci ci ci ci ci ci ci régime bi passé doy na sëkk sëkk sëkk ñu de ko fa dajati muy xuloo ak xeex ak saaga ak coowaloo ak ak wate seeni intérêt fàtte fàtte intérêt yi réew mi loolu daal mooy li nga xam ne moom lay fàttali man ci sama jëmmi bopp man tamit te maa ngi leen di xamal ne bu sif neexul sëppali du neex ndax ci faay ni lenn la li ngeen sifoon bu neexee xam ngeen juróom ñii naan juróom ñii naan ñaar fukk ak juróom-ñaar ñii naan juróom benn fukk ñii naan juróom ñetti fukki nit ngóor deena jegaan deena samba deena paate deena ku ko re xamu ko loolu si kaw sif bu neex la olof dane bu sif neexul sippili du neex bu ñu sàgganee ba delloo si fi ña fi nekkoon nit la fi nekkoon dong nga fi nekk te kon ab reyante fi nekk te du fi jóg wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu